bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki diine lislaam njabootu Cheikhuna Ahmadul Xadim ñoo ngi amaan mbégte di toogaat ci jataay bii nga xam ne jataayu sant yàlla la di feddliwaat sunu yaakaar Cheikhuna Ahmadul Xadim di ñaanal sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal kenn dolli ak wéram bokk yi xam ngeen ne Touba ca kanam laaj lu manta de ko def fu ñu xam woote woon nañ am ndaje le 8 août woote boobu nag mu ngi jëmoon ci léggéeyal sëriñ tubaa ci dëkkam bii di Touba ci mbeddi Touba yi jële fi taataay yi ak defaraat yoon wi loolu moo tax nag tey jii Touba ci kanam ne dañu daan laaj lu nu man te di ko def fu ñu xam te di ko leeral bokki jullit yëpp ba mu leer leen naññi ci juróom-ñetti fan ci weeru août 2020 bi ñu nekk ba tey jii di juróom-ñetti fan ci weeru septembre ñu bëggoon ñu indi leen li fi jot a jaar ci jaayante bi ñuy gën leeral tamit ni bokkut ak ñaar téeméeri ñu laaj lii ab rek bu dugg ci diggante boobu buñ ko tàmbalee kon ci biir réew mi muy biir Sénégal lu fi jógee dugg ci jaayante bi ci diggante juróom-ñetti fan ci weeru août ba tey ji ñu toog mu ngi toll ci 1 milliard 316 millions 66 mille 745 1 milliard 316 millions 66 mille 745. bu dee ci continent Europe li fa jógee mi ngi toll ci 113 millions 736 mille 160 bu dee ci continent Amérique. ba fa jógee mi ngi toll ci 77 millions 726 mille 800 francs bu dee ci continent Afrique li fa jógee mi ngi toll ci 29 millions 887 mille 565 bu dee ci continent Asie li fa jógee mi ngi toll ci 4 millions 147 mille 300 francs kon boo boolee li jóge ci diaspora bi ñëw ci jaayante bi ci diggante boobu ma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 fer jaayante nañ ci lu tolloog deux tonnes deux cent suuf si camion benn yi xëy mi ñu mayoon Touba kanam tolloon na ci six cent soixante seize camion Touba ca kanam soleel leen wal ñu dem tibb ko indi ko euh, xeer am na ci euh, ci jaayante lu tolloog cent quarante mètres cubes tuyau PVC diamètre quatre cent PN dix amoon nañ ci ñeenti tuyau euh, ci jaayante ba tey tuyau yi ñuy wax anaconda mooy tuyau yu guddi yi ñu booleeg moto pomp yi amoon nañ ci lu tolloog. 1200 mètres ba tey ci wàllu jaayante am nañ benn pelle chargeur eh, ñu bari gën koo xam ci pelle yu mag yooyu ànd yi pneu di tibb di chargel kii yi jaayante woon nañ ci benn pick-up jaayante nañ ci benn benn oto particulier jaayante woon nañ ko ci moto pompe yi toll na ci luy tollu fukk amoon nañ ci jaayante ñaari moto pompe yoo xam ne benn bu ci nekk 20 euh, mètres cube heure lay def ak yeneen ñaari yoo xam ne bu ci nekk 100 mètres cube heure lay def ñett yoo xam ne 200 mètres cube heure lay def loolu ay moto pompe diesel la am nañ électropompe mooy yi nga xam ne ci courant lay dox ñaar yoo xam ne bu ci nekk 100 mètres cube heure la ak benn boo xam ne 200 mètres cube heure la euh, bu dee euh, groupe électrogène amoon nañ ci ñaar gasoil tamit li nga xam ne jaayeen na dajale nañ ko ci ay jaayante tolloon na ci 22 585 litres bu dee ci ay terrain am nañu jaayante woon luy tollook juróomi terrain Euh, liggéey yi nga xam ne moom la ñuy def bari na ci lool ci jumtuwaay yi moo xam camion la moo xam ay euh, machine la yi nga xam ne ñoo war a defar piste yi yoo xam ne mbokki taalibe yi ñoo ko jaayante. bu dee diwlin diw gi ñuy toggee amoon na ci ci jaayante luy tolloog 1200 litres masque 3950 masque ak 18 thermoflash euh, bidon ndox yu 10 amoon nañ ci cinquante ci jaayante coppe à jeter en papier 1000 saabu 103 cartons alcogel 34 flacons. eau de javel 10 cartons ceeb 2 tonnes euh, ndox mi nga xam ne ay paquets yu ndaw lay doon cent jus 117 pack ak déodorant 2 cartons loolu mooy li nga xam ne euh, dugg na ci ay jaayante ci Touba kanam nekk ay jumtuwaay yu ñu mën a jëfandikoo. bu ko defee nag kon dañuy daal di ñëw ak yéen directement ci li nga xam ne moo génne ci somme boobu ñu waxoon léegi te sëñ laat moom sëñ ji li doon ko wax. li ci génne toll ci cinq cent soixante et un millions euh, vingt six mille deux cent quatre vingt loolu mooy li nga xam ne génne nañ ko ci. li ci njëkk mi ngi jëm ci latérite mooy xeer bu xonq bi nga xam ne moom la ñuy defee liggéey bi ndax xam ngeen ne bi ñu doog a commencé bi ñuy woote jaayante bi le huit waxoon nañ ñaata lañ soxla woon ci latérite waaye booba ñu ngi ko xayma woon ci tolluwaayu poste Touba ca kanam ginnaaw bi yàlla dogalee nag ñu woote jaayante bi murid yëpp wuy si ko dara di soppiku ñu yokk li nga xam ne moom la ñu naaloon. ba tax na euh, dinañ dinañ ci dikkaat ci anam bu gën a yaatu sax wax liggéey yi fu mu toll ak bu ci nekk distance bu ci nekk lañ fa war a def ak nañ ko fa war a defee waaye li nga xam ne jot nañ ko dajale ci latérite te li ci ëpp jóge Ngunjaan ndax temps yi lañ doog a tàmbalee fan yi lañ doog a tàmbalee am yuy jógee Xelkom euh, liñ ci jot a dajale toll na ci 18 240 mètres cubes liñ ci def ci xaalis mi ngi toll ak 68 millions 282 mille 500 francs bu dee lu mel ne suuf si nga xam ne moo doon jógee Njaareem wala Kër Kàbb ndax dañoo am suuf soo xam ne foofu lañ koy soxlaa tolloon na ci cent 142 charge nekk 7 millions 238 mille euh, xeer bi ñuy wax 031 xeer bu ñuul bi jën nañ ci li tolloog 1980 mètres cubes nekk 25 millions cinq mille machines yi nga xam ne ñooy liggéey ci piste yi moom ngeen gis ci kaw yoon yi ñuy liggéey euh, yi nekk ay gradeur yi nekk ay compacteur euh, xeeti machine yu mel noonu ak yi chargeur nga xam ne yi ci ëpp dañ ko luyee ndax Touba kanam ñaar rek la ci am benn bu ñu jaayante ak boo xam ne jëndoon na ko loolu li ñu ci fay ci location ci weer yu toll na ci vingt six millions cent cinq mille six cent dix bu ñëwee ci matériel bureautique lu mel ne imprimante A0 mooy imprimante grand format yi ñu tiré plan yi ak ay ordinateur jënd nañ ci li toll ak euh, quatre millions sept cent quatre vingt dix mille ba tey lu jëm ci matériel topographique mooy matériel yi nga xam ne moom la topographie yi utilisé ñi ngeen di gis ci piste yi ñuy xool ba xam euh, gudd na gàtt na suuf si mel na nii ak mel na na loolu li ñu ci jënd toll na ci un million huit dix mille am na benn citerne la pour gasoil bi nga xam ne moom la Touba ca kanam di jëfandikoo di dem ci terrain bi di ko jox machine yi nga xam ne ñoo ne ci liggéey bi dañ cey jënd benn citerne la boo xam ne day ànd ak pompe ànd ak yeneen jumtuwaay yi war a àndal yépp nga xam ne ku ci nekk bu ñu koy soxla danañ ko mën a natt ñoo ngi ko jëndee un million deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent euh, lu jëm ci wàllu communication communication télé rajo ba ci yi nga xam ne moom la ñu war a samp ci bërëb yi ñuy liggéeyee def nañ ci lu toll ak huit millions huit cent cinquante-deux mille quatre cent jumtuwaay yi nga xam ne tamit moom la ñu war a defaree muul yi muul yi mooy euh, li ñu wax ay dalo lu mel ne ay ay ay ay caniveau wala ay canal ak yooyu nga xam ne béton lañ koy liggéeyee wala ay regard muul yooyu euh, jënd nañ ci luy tolloog 5 millions 672 mille ci matériel boo xam ne moom la war a defaree muul yooyu nga xam ne moom la ñuy defaree jumtuwaay yooyu ñu wax léegi. lu jëm ci carburant carburant xam ngeen ne lu ñuy jëfandikoo la ci liggéey yu mel nii moo tax li ci a jënd ci ay litres na ci 68 mille 86 litres. nekk 44 millions 596 mille 724 lu jëm ci wàllu restauration te mooy euh, ñi nga xam ne ñoo nekk ci liggéey bi nga xam ne liggéey bi li ci ëpp ay jaayante lañ xam ngeen ne bi ñu wootee rawatina lu jëm ci ngas mi euh, pour tëral ci way Baay Faal yi wuy woon nañ ci ak bis bi nga xam ne camion benn yi ñëwoon nañ ci ak ñi nga xam ne jamono bu nekk ñu ci liggéey bi ingénieurs yi nga xam ne bàyyikoo nañ fu nekk ñu indi seen jëmm ngir jàpp ci liggéey bi ñooñu ñëpp dañ leen di waajalal ay xéewal liñ ci jot a def ci weer wi Euh, toll na ci euh, quatre millions neuf cent quatorze mille six cent ba tey lu jëm ci tiwo yi nga xam ne moom ngeen gis muy tiwo yu mag yooyu ñuy tëral ci yoon yi doon ay tiwo yu mag a mag a mag Touba Ca Kanam génn na ci valeur cent quarante trois millions six vingt sept mille trois cent cinquante machines nga xam ne moom la ñu war a utiliser ci tali yi ndax liggéey bi liggéey buy tàmbali la waaye yéene ji mooy muy wéy même bu ñu demee ba màggal gi jàll tamit ñuy wéyal ci mbedd dëkk bi mbedd yi nga xam ne jàpp nañ ne yi wares na ko defar jubbanti ko bu laajee sax ñu def ko tali moo tax ñu ne nañ tàmbalee fàggu jumtuwaay yu man loolu jënd nañ ñetti xeeti machine jënd nañ machine bi ñuy wax niveleuse ñu koy wax gradeur jënd nañ compacteur jënd nañ tractopelle ñetti machines yooyu yëpp ñu ngi ko jëndee deux cent un million quatre-vingt-quatorze mille quatre cent vingt lu jëm ci jumtuwaay yi nga xam ne moom la ñi nekk ci liggéey bi di jëfandikoo moo xam ay dàll la moo xam ay casque la moo xam ay gilet yi ñuy sol jënd nañ ci lu tolloog un million trente-cinq mille cent francs bis nga xam ci la ñu tàmbali liggéey bi. Euh, organisation bu bis ba def nañ ci lu tolloog trois cent quinze mille yeneen tiwo yu ndaw ndawaan yi ñu doon jëndaat ak transport tiwo yi ma wax léegi tam jóge woon Dakar ak euh, bu ñuy gas léeg-léeg tiwo ndox yi ñuy taseel mu dagg ñu koy defaraat loolu li ñu ci def toll naag deux millions trois cent soixante quinze mille ci réparé waat ak transport ak yeneen yu sew yi ci des ay matelas ak yeneen jumtuwaay yi nit ñi am pour mën a am seen dëkkuwaay ñi nga xam ne ñoo ñëw jaay ci li jaayante ci liggéey bi jëm nañ ci lu toll cent quarante six mille cinq cent ay peel ak i pic ak yu sew sewaan yi ñuy jëfandikoo jënd nañ ci trois cent quatre-vingt-cinq mille li ñuy wax grille avertisseur te mooy pax mi boo ko gasee ba noppi ba tëral tiwo bi ba koy suul nga def fi mandarga mu muy tax bu ëllëgee ku koy sulliwaat mën a xam ne fii dara ngi fi bala nga àgg ci jëmi tiwo ba loolu li ñu ci jënd toll nag cinq cent trente-sept euh, liggéey yi nga xam ne ñoo ngi koy def fi mu ne nii jëm ci yenn bërëb yi nga xam ne am na ay liggéey yu ñu fay def defal lu mel ne ab foos boo xam ne ndox ma dafay dajee war faa jàll feneen am na ay entreprise yu ñu ko jox benn ci entreprise yooyu jox nañ ko avance 792 880 euh, liquide yi nga xam ne danañ ko boole booleeg ciment bi ngir boo koy liggéey ci bërëb buy am ndox day tax mu gaaw a wow jënd nañ ci lu tolloog 737 603 ba tey ci wàllu topographe waxoon naa ko léegi lii da cee dolli ko waat toll na ci 487 500 am nañ ay euh, yeneen frais supplémentaires yu sew sewan yoo xam ne dafay jëm ci ay frais de voyage ay frais de voyage réparation jëndum batterie wala fexe ba moto pompe yi ñuy doxal man di dox ak lu jëm ci ay ruban ak manutention mooy fay ay manœuvres yu wàccee si ak yooyu li ñu ci jot a def toll na ci cinq millions six cent cinquante sept mille quatre cent trente loolu yëpp boo ko boolee moo lay jox cinq cent soixante et un millions zéro vingt six mille deux cent quatre loolu mooy li nga xam ne moom la génnee génneegum ci jaayante bi boo ko génnee nag ci li nga xam ne moom la ñu li nga xam ne moo des ci jaayante bi mooy neuf cent quatre vingt millions cinq cent trente huit mille deux ci tolluwaay bi nga xam ne mooy bisub le 8 septembre ndax jaayante bi ba léegi mi ngi wéy mbokki taalibe yaa ngi wéy di joxe seen jaayante. di leeral bu baax ne 561 millions 26 mille 292 yi ñu wax ne moom la ñu génnee gun ci xaalisu jaayante bi li nga xam ne moo ci jëm ci liggéey bi ñu toll nii nga xam ne moo ci jëm directement loolu mooy tolloog 353 millions 366 mille 292 207 millions yi ci des ay jumtuwaale yu Touba ca kanam jënd fas yéene di wéy di ko liggéeyee ci dëkk bi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki taalib yi mbokki jullit yi ngi yëkkati sunu kàddu di leen nuyu nuyu ba gën a jóg ci nuyoo yi ba gën a def ci nuyoo yi ci turu sëñ Tuubaa Cheikh Ahmadou ci julli yi fu waay maa nekk ci biir réew mi ak bitim réew di leen sant te gën kàddu cant ak ak ndokkeel leen ci xew-xew bi nga xam ne ci nekk woo nañ ngeen wuyu yi di sant tuur sëñ bi yoon yëpp nag kon may sant góor di sant jigéen di sant di sant ndaw ñëpp ndax lii kat wax yàlla jàppoon nañ déwén ni mu ko waaye sëriñ bi boo koy wooteel xamal fa nga tàmbalee rek waaye boo xam ndax moom mooy yëkkati woote bi fu mu war boo dugg ma ko dugal ci biir yoon wi kenn desut ñëpp ñoo nañ waaye ñu sanaat Baay Faal yi tim ci boppam ndax ñoom dañoo ñëw ñëwaat loolu nag bu ko waxee rek ñëpp xam ne Baye Fall yi ñoom ñooy ñooy ñooy militaire yoon wi euh, da joxale seen àll waaye joxale seen doole tim ñu am nañ kon il faut que ñu belloo cant goo xam ndax ñooy ci moo tax ñu gën a seeru Fall ndax sëriñ bi fi ñu toog suuf seeru ko ne bu njëkkoon ñëpp yaakaar woon sëriñ Tuubaa euh, ñëw ci moom waaye mii màggal ab sëriñ ak di ko war maa jox ko seeru ko fi yëpp nag di sant seex yëpp bokk ndax liggéey bi jëmee sëriñ Tuubaa la dafa naa ne ku yaakaar sëriñ Tuubaa ko ne bëgg nga Tuubaa jëm ci kanam benn murid kon man ne ni gën a ñaaxaat di ñaaxaat sama bopp dinañ waxal nañ mel ni ñuy doo tàmbali dañoo mel ñu ñu ruuj bëgg am cere ku ku ruuj nag bëgg am cere diggante simiñ ak suuf ak sim daa soree nañu xam ne dañuy dañuy dañuy ruuj te mooy li ñu tàmbali nañ fexe ba am cere nag ndax ndax ndax ruujam fi eh, farasom fi eh, mu taw mu taw nga nga nga nga nga nga bay ak ak ak wallet ak yëppañ ci biir ba ba ngay ba ba ngay bajj bay bay bay def ngar euh, bay soq bay wal bay foofu bay def yëf yëpp ba toog caay ba teg ko siim kon fa lañ jëm siim gi nag mooy na tuwaa na tuwaa mel ni turandoo rek lañ bëgg kon ñuy woo ñëpp nag ñun nag nekkuñu kuréel boo xam ne ñu jóg di parparloo wala ñuy féete kii bàyyi kii déedéet dañoo fal suñu nopp yi fal suñu bët yi fal suñu yéene def lenn loo xam ne dana ëmb déef yi woote wuñu ngir wane di doole ji tuwaa tuwaa ci kanam am amul déet tuwaa ci kanam moom mooy murid yi rek dañoo woote rek ngir wane ne murid yi indi seen alal jox nañ ko Touba Ca Kanam jaarale ko suñu loxo loxo yooyu yi mu jaaroon ñun nañ fexe ba fa mu dugg ñu leer na fii dugg lii ngeen jox lii lañ ci def lii ma fi te xam ne dëkk bu sëñ Touba nekk wut yooyuwul nii mel moom yooyuwul nii fekk wax dëgg ci ay murid lañ donte ay murid ay murid lañ te loo sëñ Touba nekk ci dëkk bii nga gis salte yi fii nga gis pax yi fii nga gis ndox mu taay yi fii nga gis loolu bu fekkee mu dëgg lañ la loolu yëlluwu ci dëkk bi mu ñëw ci dëkk bi li yàlla ay marbre la war a yoroon dëkk bi lépp li ko war a marbre man li ma ci tàmbali ba rek ci bis boobu dama ne bu fekkoon ne yor naa lii képp ci àdduna yor kon dëkk yëpp mbedd yi ko goro yi sax xeeb naa ci loolu waaw hmm? kon li ñaan rek euh, ne yàlla def dëkk bi mel ne turndoomal ci àjjana te àjjana wax nañu moom amul lu tàng amul lu sedd lépp daa neex rek noo ko bëggee noonu la ko bëggee noo ko yàlla defee kon yàlla ko yàlla suñu tuwaay gi dañ muurloo ko ñii dëkk bi borom ñaan mu mel ni yàlla na ci lu baree baree sotti suñu loxo ba bu ëllëgee si biir jil ñëw ñoom ñu def lu kawe suñu njort waaye yàlla ñu yàlla bàyyi gunge ñu ñu ànd sëñ bii di ko liggéey sëñ Tuubaa ba def lu lu lu kawe njort nit ñi ba ñaan lii mën fi woon mosoo ñàkk mosoo ñaan am borom àll yi ñëw nañ borom xam-xam yi ñëw nañ borom doole yi am nañ ñëpp ngi ñëw waaye yokkaat leen rek waaw kenn ko jàpp ñëw si sëñ Tuubaa defal la waaw lu waay defal na ko xeet ndax na nga xam ne kat fa ñu jëm daal du fa dee te sëñ Tuubaa lu koy def mu fay la ko waaw kon nag liggéey fii ndax mag ñi fi seen sëñ Tuubaa ba seen njaboot yu tedd ci seen teraanga joojee